na kati kan koti kan ci délégation bi la bok bu mer bu ablay ndjay galbu ak pap moussa diop ñu sant tamit délégation matar djum abib mbay mok fi teewal ak ñu sant tamit seydou njegel yu wayjur alhaji mansour neena mo ngi nuyu ñepp mu ngi nuyu njabootu Seydil Xaaji malik yi fi teew yépp di kenn ci baayam seyde Aboubacar Si di kenn ci baayam Alxaaji Mansour di kenn ci baayam Alxaaji Abdoul Aziz di kenn ci baayam Alxaaji Habib di kenn شيخ محمد سيد محمد منصور برم داريا ديكن شيخ احمد تيجان سي المتوم ديكن تي موكوغي ديكن تي ديني تي الاسلام بي طريقه بي ات يمو في ام كان مسؤول ديك سري عبد العزيز الامين mu wax loo xam ne ci tariqa bi wala ci bokk bi wala ci lislaam bi nga ne lii de sëriñ Abdu waru ko wax nee baayam gërëm na ko de ay magam gërëm nañu ko tariqa bii ak suñu kër maam Cheikh Alxaaji Malik général la ci woon bu xam ne wallaahi nee na kenn mënu koo wutu de nee moom ci boppam daana ma wax man de bëgguma dara lu jur sëriñ Babacar si suñu maam ja nee li ko maam dénkoon Seydil Hadji li mu bëgg mooy mu yegg ca kaw kooku mooy sëriñ Abdul Aziz Al Amin ak Tijaani yal na yàlla dolli ay leeram ak i magam ak i baayam nee na mos na ko wax benn bés ne ko sëriñ Mbay Si Al Xalif nee na waxuma mbokk gi de nee na waxuma tabara Cheikh ak Abdoulaye Cheikh waaye li ñu bokk di Cheikh Seydi El Hadji Seydi Aboubacar Sy nee na xalifa bii fi ne fooye ko benn yoon nee na moom lépp Cheikh Seydi El Hadji la waaye bu ñu doon wax jigéen ju man góor ci fukki at yii ñu weesu wala ñaar fukki at suñu ginnaaw wala fanweeri at ci ginnaaw wala juróom fukki ci ginnaaw bu ñuy wax ni jigéen ju man góor moo nii toog mooy Umu Kalsom Mbay tabaarakallah nee suñu yaay ji toog di góor sii toog nee na di Seydi Haaji Malick ci ci baayam ñaari yoon waaye nee na yi lool yal na yàlla guddal fanam amin yal na yàlla dolli wéram amin moo gorom yi mu àndal yépp mu jàppale ko ba lépp lu mu yen woon ci yaayam suñu maam ya soxna mu xayri borom waañu ibnu seydi abubakar si nee na daanuwul benn yoon nee na sa ja jaja barzak tànt bu mu mës a ronu ak lu mu song yaag moom ko bokk songandoo ko nee na kon Adja Umu Kalsum Mbay ñu ngi lay gërëm bu baax ak di la sant nag nee na nga suñu bés bi nee na yow Seydi Hadji ñaari yoon nga nee na kon nag ngërëm maam Alaaji Abdul Aziz Abdul Aziz Dabaax nee na ay waay gaañ ku defati baax su mbooloo taxawee wax leen ko ndax am ñu ci mbaax mi waaye suñu yaay umu kasoom góor a ngi toog nee na tey nag li ko andi nee du dara nee lu dul bëgg ka ca barsax kontaan rek sëriñ Abdul Aziz Sy Al Amine ak Tijaani nee bu ñu nee duudu kenn dañu koy sarga defar ko suñu bàyyi bii alxaaji Mansour Mbay mooy pare mu kasoo mbay moom mooy marraine bi nee alaaji duudu kenn mbay toog ak kilifaam suñ mag yi di xalifa mbay nee na boobu tànt day sëriñ Abdul Aziz ba dem jàkk ci ñun nii pare ba defoon Mansour Mbay ci duudu kenn mbay te duudu kenn soxla wax mooy kan de dara naan mooy doomu mbay doon de nee duudu kenn daal bu ñu dee tiitaroo ñun suñu maam Cheikh Seydil Hadji Malick ak Seydi Aboubacar Sy officier bi gën a mag ci kër gi ci rasulullah tudd Cheikh Ahmed Tidiane mokkal xasida Seydi Aboubacar Sy ak alaaji Mansour ak alaaji Abdoul Aziz ak Haaji Habib. foofu Serigne Abdoul Aziz tegoon ko ca ko ca kaw. kii. bu ko wutalee bés. ne Mansour Mbaye day pare la ci. suñu yaay Umu Kalsoom di mare. Serigne Abdoul Barsak. te ronuwul tant bii. wallaay nee tey bu tëddoon du nelaw jërëjëf. Serigne Abdou tegoon du fi Serigne Abdou tegoon duudu kenn mbay. te lu taxoon mu teg ko fa. te lu taxoon mu teg mooy. mooy. mooy gu mat sëkk. ci moom. ak ci kër Cheikh Seydil Hadji Malick moom nag. lii ñu ko defal. nee na duudu lii jomb la benn yoon. koo xam ne. jàng français. jàng arab bàyyi lépp ni man daal ba sama baay ba nekkoon ca kanamu Seyda Aboubacar Si ak Sëriñ ma Seyda Aji Mansour ak Cheikh Ahmed Tidiane ak Cheikh Abdoul Aziz man day soxlawuma dara lu dul di yëkkati sama baat bii di wax ay xasida kër Cheikh Seydil Hadji Malick nee na kon bés bi day képp ku to sopp suñu maam Cheikh Seydil Hadji Malick fab Seydi Aboubacar si def ko sa dënn ak rakkam yu baax ya il faut ñu sopp mu sopp duudu kenn nee na duudu ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla may la gudd fan amin yàlla na la yàlla may wér nee na moom nag nee na bi ñuy miraas suñu mag suñu wéju ak xaaji mbay doon mbay yére yéenu doon génne nee na yére yooyu doon génne nee na ay yére ma nga ca nee na lu tax loolu mbay donde nee na suñu papa mbay donde waxul de féete gi mu féete ak ñoom waaye day nitu yàlla piir na ci lu wér man ñépp nangul ko cëram nee na lañ ko nanguloon nangul nañu ko sa mag ju baax ji ci kaw di sëriñ babacar si ak yow mi toog nee kon nag duudu sa papa ngi lay gërëm sa papa ngi lay sant mu ngi lay dollee ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddee sa fan amin nee na doon nas bii nas nee na xale yi baax ngeen lool nee na duuru yow ëpp ngaa defar hommage bu ñu amoon lu ëpp hommage kër Cheikh Seydi Hadji Malick dinañ la ko defal nee na suñu maam ji alhaji Abdoul Aziz sëriñam ba di suñu maam nee na nee na ku amul péete nee na amul péete alaaji abdu nee na doom cër nee na yow duudu sa pédé yëpp mooy kër Cheikh Seydil Haaji Malick sa lépp mooy suñu bàyyi Seydou Aboubacar ak rakkam yu baax di la gërëm nag di la sant bu baax di gërëm bu baax moo di xulle mii toog nee na Serigne Abdoul Aziz Al Amin moo jàpp ci loxoom ne Modou Khoule. ne ko kii mooy Papa Mansour ga mooy suñu mag ci daara ji nee na bi ko sëriñ Abdou waxee ba léegi ëpp na ñaar fukki at nee na nagam gàmmu ak premier mai nagam a koy jiit di duuru kenn wax léegi képp sopp Cheikh Seydi Hadji Malick bëgg Seydi Abdoul Alamin bëgg Seydi Abdoul Aziz Sy Al Amine wóoru xulee fat na la taf la ci bopp yal na yàlla may ko gudd fan yal na yàlla dolli ay wërsëgam umu kalsoom li mu wax léegi ci càmmiñam lool di doomam jooj di Abdoulaye Ndiaye Ngalgu audience ak Seydi Abdoul Alamin. su masaayum audience ak Seydi Abdoul Aziz Al Amin. xam ne sama digganteeg moom. nee na ku xam digganteem ak Seydi Abdoul Aziz. bu ñu nee ku fi ne. bu ñu nee ku fi ne. nee Alxaaji Mansour Mbaye moo fi ne. ku xam sunu diggante. nee na ku xam seen diggante. day wax ne maa ngi doxi sama soxla. day wax ne maa ngay dem doxi samay soxla. ñii trois heures de temps wala quatre heures de temps dinañ ko am. nee na xamul woon Ablaye Ndiaye Ngalgu waaye nag xam na Ngalgu nee na suñu woy yu ba suñu papa Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daan ko wax dama ci Pape Mansour Mbaye nangam ak nangam góor gi Ablaye Ndiaye Ngalgu nuyoo bay dem Paatee ko ne Ablaye Ndiaye Ngalgu ngi fi mu ne ko na yegg mu wax ak moom. tey loxoom ndax xam nga sa papa Mansour mi mu ne ko waaw mu ne ko waaye doyul dee ko toppatoo nee na moom itam lii bàjjen kala mbay wax nee na loolu la koy defar ay nagu gan enveloppe yu rëy yàlla yàlla dolli wërsëgam nee na fi muy teeral ñaanal suñu doom ji ci sekk daata def lii nee mi am na souvenir de nee na suñu maam bi sëriñ Babacar si xalifa ak Alaaji Mansour suñu maam ak Thierno Seydou Nour ak Thierno Seydou Nour Tall ñoo ànd ak le gouverneur Lamine ak le gouverneur Lamine ak gouverneur Mesbé ak gouverneur lu xew. ñuy inaugurer mbedd mu mag nii. ñuy inaugurer mbedd mu mag nii. xalifa bu tedd ba. xalifa bu tedd ba. nit ñay daw. nit ñay daw. ñu ne lu xew. ñu ne lu xew. ñu ne mbedd mii. gouvernement bi. gouvernement bi. ñoo ko tuddee. suñu maam suñu maam. Cheikh Seydi Hadji Malick. jërëjëf. booba. nee na booba de. Ah, xalifa yi. booba xalifa yi. nee na melul nii mu mel. nee na suñu Pape Mansour Mbaye xalifa la. xalifa bi toog ci kaw xalifa la. xalifa mi toog ci kaw xalifa la. Mansour Moussa la xalifa la. Mansour Moussa la xalifa la. waaye boobu bu ne xalifa. waaye boobu bu ne xalifa la. xel bu dem ci kenn. xel bu dem ci kenn. lu mu sëñ lu mu sëñ Abubakar suñu maam. góor góor. nee na góor góor. voyage bi mu mujjee di mu jaayee ca Ndakaaru. nee na voyage bi mu mujjee ñëw Ndakaaru Ndiaye. maa ànd ca wagon wa maag Cheikh Ahmed Tidiane al moom moo ànd ca wagon wa ak suñu sëriñ suñu maam suñu lépp sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si almatoom ak Seydou Mansour ak Seydou Mansour borom daara ji Seydou Abdoul Aziz nekk suñu gannaaw suñu wayjur sëriñ Abdoul Aziz si nekk ca gannaaw Seydou Boubacar jëm Dakar nee na suñu maam sëñ Babacar jëm Dakar ndax Dakar la daan woore nee na Dakar la daan woore ba muy wàcc nee na bi muy wàcc ca gaar ba ca gaar ba mënul wàcc mënul wàcc oto ba la ñu fab oto ba la ñu fab taalibe yaa ko fab taalibe yaa ko fab yaru ko yanu ko ba fi muy wàcce ba fi muy wàcc mu mën a wàcc mu mën a wàcc ngir mbooloo ngir mbooloo nasri ak bi la nee naas di jëp di jëp ca kër gouverneur ca kër gouverneur 99 riz ba 99 riz ceeb koo koy Seydou Ababacar Sy Diouma tabarakallah ah duudu daa am fu mu jëm de ko xam ne ñu koy nekk nee na lii de manatu ko ci toogaay bay xuloog xalif général sëriñ mbay si mansour nañ dem gàmmu ko nañu dem gàmmu ko mana ko manatuma wallahi baal ma rek si tànk yi baaxatul moo tax ma waaye bëgg la sopp la am ci yow ci digg digg cofeel bu rëy. am ci yow cofeel bu rëy. moo tax ma déplacé. looloo tax ak ni muy mel mel. ak ni tànk yi bon. ak ni tànk yi bon. ànd njabootam. ñëw. ñëw. nga gis ko rek. pour nga gis ko rek. pour Serigne Abdoul Aziz si mbég rek. loolu rek la. nee na kon nag. ngi tàggoo. di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp. sant ñëpp. nee na duudu kenn. nañu waajaat. beneen at. beneen ñu defaat beneen hommage. def beneen hommage. bu gën a rëy bii. bu gën a rëy bii. dafay jeex. ñu ne nag mbir mi commencé gu duudu kenn dafa wax bi ñoom Abdoulaye ñëwee ne ñoo moom bëccëg bi ñoo moom woy pour dëggal li Pape Mansour gis na du doom ma si were mu ngi koy bu baax. nee na ñoom lu ñu am. gannaaw yàlla. ak yonent bi. suñu maam Cheikh Seydi Hadji Malick la. nee na tanak. lépp. ndigaayam la. alfaayima yoro. Cheikh Omar Fouti. nee na kon nag. bis bi. kulóoru na lool. te alaaji Malick rekk fi. ay soppe rek fi ne. ay soppe rek fi ne. ñii koo ci laal xolam. ñii koo ci laal xolam. koo koy fekk. koo koy fekk. Cheikh Seydil Hadji Malick. Cheikh Seydil Hadji Malick. Seydou Boubacar. Seydou Boubacar ak rakk. allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. ah sa dëgg dëgg doonu rëy. ala ndaw mi nag. ah sa dëgg dëgg nag <laughs> ma gestu nag. jàkkaarloo ki nga xamante ne ah mooy soxna Kalla Mbaye ah day sant ku baax. ah ndeysaan koo xamante ni ah, sa dëgg-dëgg nag à travers Sénégal à dëgg-dëgg nag ah ki tarixa Cheikh ah sa dëgg-dëgg jàmbaar la. ah ndaw lu rëy ah du nuy soppe yi koo xamante ni ah sa dëgg-dëgg nag tey jii ñëw nga ngir yàlla ak Ahmed ah dëgg-dëgg ah ah sëñ Babou. daa yi sabaani ya ma sabaani Thank you. شيخ شيخ شريف كصب مولانا سيد احمد التيداني انا طالب شيخي سيد فمن ذا الذي يكوي إليه ولم ينره بصاحب من الدارين إلا هو الضائع وطهمة تارك الشرط دم الجنة ها تارك الشرط دم الجنة واو مجد دم الجنة خادر دم الجنة laayeen dana dem aljana waaye taalibe cheikh bu dem aljana ah. laaj leen ma lu tax aljana mooy ñëw ba ci kanamu taalibe cheikh ni ko far laa force ci nga ma dugg boo bëggee da ngay dugg boo bëggul da ngay dugg ndax da ngaa war a dugg man maa war a fas naa Thank you. شيخي منو كان مولد الدندل مني دلن دي تانكر اي تانتي كليماتيزر مولا الرب سنتي نكي دن لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه الشخص الاحمر شريفي وطرق الى الشخص دم الجنه ملك دردم الجنة خادر دردم الجنة لاير دردم الجنة تارد الشيخ دردم الجنة الجنة وين يمتك لما تارد الشيخ الله فرس دين ومتكم صوبك دردتكم صوبك دردتكم نحن وردكم ما وراء فاسنا صوبك دردتكم மகாய ஹரை கொம்பரன் கம்யம் குசராஷோ நகரி சாட்சியாரம் சோரம் ஹரை நன்னன் நசீனி பாய் நாஸ் தாரி பேய் நம்பர் நாஸ் مدينة كل الناس ديك زيارة دي شيخنا التجاري كل الناس ديك زيارة دي سيدنا محمد صلوات تفرح تفرح كومباني سانتر سلوما الحاج دورو كلمي may ñaan képp ku sokku bàyyi bay benn mi nga xamante ne nga dem capital Serigne Babacar Sy ووحدة بهما فاز ناس ناس ناس ناس وفك شيخ الله خيجكر وكتليخ الله خيجكر وفك شيخ الله خيجكر كيان شيخ الله خيجكر يا بابا جكر يا رجلال بابا جكر يا رجلال بابا جكر يا رجلال Go, Mas, my, mas,

يا حقا خصك الله تفضلا واحتراما

واحتراما من مزايا بصاحب الروضة العظمى الذي ختمت لسان سيد عبد العزيز الأمينة فكنا خريطة مشيخنا نتيجاني به ولاية من مولاه فتوحاتي من قد عز شروا شيخ التجاني شيخ التجاني أبو عباس السحر التجاري شيخا مشايخ الرنوبة فما غناه لملا وشافعنا المختار من مدر ممعتنا خير البرايا جميعا وكان البنية ودع سوايا قال له بالله كان شريف سلاح من التجاري في يقظته ورده المختار أعطاه يا فوز آخذ ورد كان لقنه أنا قد ما في بيت مولانا سلاح من التجاري شيخ المشايخ خير الخلق مشوار يا يا سيدي عبدكم قد حل ساعتكم بالله كم جبر التجار يغدو قرايا منكم وأنت مأواه وما له أحد يرجو امسكوا سلاح التجار يوم الرسول الذي أسرى بالله الطف بنا وارحمنا واقض حوائجنا شيخنا التجار يا معدن الجود مما خصك الله أنت المرافق لنا في التمست ملامة ارتجاب يا من لو عند مولانا العميد جاه خدع قرعنا لديك اليوم سيدنا بالله تمشي من التجاري مما قد أولاك ربي من عطاياه من غير سيدك الشيخ شيخ كما ما لنا عبد في خاطر بيدا من سقياه يا يا شهنا يا أبا العباس يا ولدي أنا صبي ما مدن صبي مدن يا من معبود يا من هو عن تقياه قد جاء من ndey puy man damaa dem ba dama ni ko yow dana la dàq sa liggéey mu ne ma damaa jël congé ndax bis bi ndax sama papa lu ma ko defalul dama koo mul waaye ma lay wax ni waaye ni ñu àndee ak ñoom rafet na ndax li ma ciy teg mooy jigéen ñooñu su ma tuddee soxna Ndey Bule yóbbaale na ñépp ndax ñoom ñépp ñiy toog sol seen yu weex yu rafet yii kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax yenn loo leen fanaanoo leen mënuma leen lim yéen ñépp te yéen ñëpp benn ngeen kon soxna Ndey Buy rek laay jiital mu yóbbaale leen bu dee ci organisation bi Ousseynou Khoule bu dee ci wàllu secrétaire ñu jël na mu yóbbaale ñu ñoom musaa Sarr ñoom Pape Makumba Siis ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm waaye di la seedal nag sunu nijaay jii Baye Cheikh Seck ak sunu nijaay ji Alsan Seck ak Baye Cheikh mii Baye Cheikh mii dafa assisté sunu réunion yëpp ñi baas baas bii munu ma leen a bañ a tudd jiital ci baay baabu yendaluñ fanaan luñ xalifa dukkure mu fi àndal wa sopp sëñ babu yendaluñu fanaan luñu ni allah meeg sa goro bu yëf yi deme tay ba yegg fi publicité yi moma mam ndox ti yu bayiko ci sa Mouhamadul mustafa si abdullah si sal Amin ñu indi ko ci njaboot bu tedd gii loolu rek moo tax ñu yëkkati fi kaddu wala ñu fas yéene fee yëkkati kaddu waaye di fi teew yëpp wala li ñu fi wax ci ay kàddu yu rafet jëmee ko ci alxaaji Dudu Kenn Mbay ak mouvement bi nga xam ni ay njaboot ñoom ñoo ko taxawal mënoon nañ cee yem dal di doy xaji dudu ñoo ngi lay indil nuyoo seen Mouhamadul Moustapha mu jëlee ko ci woy juróom alxaaji malik si ibnu cheikh alxalifa abi bakrin si radiallahu anhu mu jëlee ko ci alxalifa sëriñ babacar si alxaaji mansour ñu indi kaddu yooyu rek teg ko ci loxo sëriñ babacar si mbay bu alxaaji mbay dondo mu wàccee ko ci tànt bi ndax tey jii fa tabaarakallaahu bu lii amee mu ñëw teew bu ñu ñëwee fekk ko fi kaddu yi ñu jëlee Tiwaawan te muy ay kàddu boppam dañ koy teg ci loxo moom mii di nuyu sunu soppe sunu ويجر سنو خريف دي الحاج منصور مباي الحاج منصور نيوغي لي نيو نيوغي لي زيارة نيوغي أم كونتان تبو باخ موي سما سيخو مكة نيم كوي وخي فتبارك الله نيو نيان الله يالا يالا يالا قدر سفن ني محمد المصطفى نيو شريف نيو مصطفى نيو سيد أحمد su ma limee du baax naa ko yemale foofu waaye nii xaaji Malick Mbaye male di sama xarit fa tabarakallahu ma gisee daf may làkk arab yu neex ma nuyu ko bu baax ziyaar ko fa tabarakallahu di nuyu njaboot gi yépp fa tabarakallahu xaaji euh, dudu sëriñ Moustapha sànq dama ko wax ne ko man kat dama am yéene dem ci ndokkeel gi ñuy defal xaaji dudu mu ni ma man mi day maa ca waroon a dem kon nag gan ñaa ngi ma tënk te nga ma teewaaleel ma ne ko ëpp naa def kon kay bàyyil ma teewal la rek kon te dàq sama bos mu boole ma ak alxaaji abdu dara di sunu nijaay ne ma na la xalifa Ababacar Njaay yóbbu ngeen ànd demal ma ca kon fa tabarakallahu bu ñu ñëwee fekk fii njaboot gi ñu fi fekk ñoom ñëpp di njabootu baay Xadim Mbay dond di njaboot bu tedd gii ñu fi fekk fekk fi sunu rakk Seex Mouhamadul Mansour Diène sànq dama ko wax ne ko dama la waroon a jox kàddu gi rek te man daal di yeeweeku ndax ñoo ngi war a am fu ñu jëm waaye fa tabarakallahu mënul ñàkk rek ñu jotal kàddu sëriñ bi jëmee ko ci xaaji ak mouvement bii nga xam ni am naa yaakaar ni ba ñu koy door ñoom xale yi muy ñi ko sos ñi ma ci xam yaakaar naa ne waxtaan nañ ceeg man lu bari ndax yàlla boole gu ñu yàlla boole ak ñoom muy Ousseynou Khoule fa tabarakallahu muy Moussa amul bis bu ñu ciy taxawal te ñu ci wax laaj ñu ci sunu xalaat ñu jox leen ci sunuy orientation yooyu yëpp fa tabarakallahu bu ñu demee ba bis bi ñu wax ñu ko sëriñ bi yebalaat ñu ci dañuy wax ni benn xeer la bu ñu sànni jàmm ñaari picc wala benn xeer la boo sànni jëm ñaari picc kon président Hadj Babacar Sylla ñoo ngi lay nuyu di la teg nuyoo mouvement bi yépp ci sa loxo ci ñu Cheikh Mouhamadul mustapha abdullah Sis Al Amin di nuyu ñi teew ñëpp di am kontante di am ndégte njabootu bàyyi xaaji mbay dondoo ñoom ñëpp seen kaddu ñu teg ko wala seen kaddu nuyoo ñu teg ko ci loxo Serigne Babacar si Mbay mu jotoon ko ñëpp ndax bu ñu limee du baax ndax sëriñ bi moo daan wax am sa ñëpp lim ko dafay nuru cat waaye fa tabarakallahu daal ñu xam ni man ak ñi ma sëriñ bi booleel indi nañu kaddu nuyoom ak kaddu ànd ak yéen ci lii ndax xaji du di kenn dafa nekk kenn ci biir xadara man Cheikhul Xaji Malik radiyallahu taala anhu waxtaan woowu Moustapha li wax ah dañ koy déglu ci sunu biiri oto waaye fa tabaarakallaahu da nga yëg ne rek na bàyyi mbay doon la doon jàngale noonu lay jàngale ci biir tànt yi te loolu mooy li am solo euh, la mu jàng lépp fa bàyyi ko ñëw ànd ak ñun ci daara ji sëriñ Abdul Aziz Al Amin bàyyi woon ko xel ci liggéey bi mu doon woon ci way juróom te ku xam bay alxaji bay doon xam ne ku amoon kasfu la ndax sëriñ bi nangoo nañ ci làmmiñam mu wax ko ne ko dama bëgg su may dem ma am lu ma bàyyi ci sama njaboot muy mission bi sëriñ bi laaj ko kan nga ko xalaat bàyyi bàyyal mu tudd turam moom mii ak ay rakam fa tabarakallahu loolu bu amee nag tey muy dund ci xadara bi ànd koog magam yu baax yi ànd koog ay rakam bu bis bii jotee tey bu fekkonte ne dañ ko yëgle ci biir réew mi mën nañ wax ni fii ba gaaraas nit du fa nit du fi xaj ndax ku nekk wuyu si na la waaye xale yi fa tabarakallahu ñoom it seen cofeel ci moom xam ni fu ñu ko woo mu wuyu leen du xeeb benn tànt du yëpp ni fii may ñëw xaalis moom fi indi wala daraja moom fi indi service bi rek lay loolu nag bu amee Serigne Moustapha nee na kon moom ci boppam moo waroon a ñëw ànd ak yéen ci sargal bi xam ni la ko way jur ya bàyyi woon loola ca la nekk waaye mu am ci diggalu way juram bii tey di Serigne Babacar Sy Mbaye ak fa tabarakallahu ñi mu ko àndal ñoom ñëpp ci njaboot ba xaaj may donn kon sëriñ bi wax na ni moom moo waroon a ñëw ànd ak ci sargal gi ànd ak yéen ci li nga xam ni moom mooy tatagal gi nga xam ni moom lañ koy tatagal tey ndax nit ku nekk nag la muy dund ca nga ko mën a ca nga ko mën a jàpp ca nga ko mën a taxaw te kuy dund ci ëttu mam Seexul Xaaji Malik radiyallahu jël sa xol yépp xaj si di way na ko léegi wa qalbi fi xalaqati xat kafaani أنا والله حقا في كفاني لما شيخ الخليفة رضي الله عنه جخن بايم بتد با شيخ الحاج مالسي نكو سما قلبي أتنا كو تسا كو جم جتد جي تسما كو تأجي مدوي ما تدير دوي ما تبتي kon loolu la xaaji dudd kenn def jël léppam aj ko ci kër moom cheikhul xaaji malik waaye ànd ak li ñuy tuddee li ñuy tuddee toroxlu te mooy li babacar wax du woote waaw du woote fa tabarakallahu ndax ay njaboot yu ànd di la defal la ñu lay defoon ñoom jàng nañu xam nañ li ci woote man Cheikh Hadji Malick mi wax ne ala daawal fata unqun wa jahalun wa yamunu makara mawlana jahulu waaye bam ca teg mu am solo mooy maqaamul abdi dullun wa tihaanun tazallal kay tujaanisa ya xaliilu te loolu la loolu la njaboot gi di dund mooy wàcce sa bopp toroxlu ci sa kanam yi njaboot ci sa kanam yi wayjur ba cër boo xam ne yaa ngi ko doon séntu yàlla sunu borom tabaaraka wa taala lay sallallahu alayhi wa sallam wax ni ku wàcce sa rek yàlla yëkkati la moom ci loolu lay nekk te mooy cër bi gën a kawe moom la moom Cheikh El Hadj Malick wax mu ni maqaamul abdi dullun wa tihaanun nee na cër bi gën a kawe jaam di ko am rek mooy doomu aadama bi toroxlu te loolu fa tabarakallahu moom la ñu fi gis kon nag bu ñu indee kàddu sëriñ bi ñu xamal ni ñii di mouvement bi li ngeen def fa tabarakallahu defu leen ko pour woote waaye da ngeen ko def rek pour bëgg ñi nga xam ni ñooy njaboot di xaaji dudu di fekki si ñoo nit ñu xam ni na ah dudu am na bis boo xam ni njaboot bi war lu ñëw delloo ko njukka loolu rek la moom la Serigne Moustapha wax wax ñu ko mën a dal xaaji Abdou Darani ak Serigne Babacar ñu indi ko teg ko ci loxo Serigne Babacar si Ndiaye Serigne Babacar si may fa tabarakallahu mu jàllale ko ci fan bi yépp ñoo ngi nuyu Serigne Babacar Diallo ñoo ngi nuyu waa Costas ci waa Thiès fa tabarakallahu ñoom xaaji Babu ñoom Serigne moom ñoom Géen

kenn bëgg ca diwaan fajar lañ ma Abdul Aziz si manaan ma nga tëdd feeti waawan ki gën a bëgg Sëriñ Abdul Aziz Al Amin jugal taxaw ñëw ba ci man ni ma man la signal yow ci jàngi jooy nañu la yow murid yi jooy nañu la jooy nañu la yaa nga tëdd fekki waaw sëriñ am nga taaral nga leeral nga kii diine ji baayu maam faama ñibbi naa mooy amiin ci ci waaw ak mbaggul loxo loxo ba ci biir saanam nga naan wajjahtu wajhi ilaykum munta amali li taxfira li bi ma ati min zalali loola tax ma ni ko man jaale naa ko yaakala mbay mu yóbbaale kuy sëtu mbay duudu mi doonoon waykatam feeti waawan ku fi gën a bëgg Ahmadu jugal taxaw ni ma man la yaa doon waykatam seeti waawoon Serigne Abdou ñaari al amin ñoo am fii ci àddina gi yi ko wër al amin ci Medina al amin ci Tiwaawan Ababacar Sadiq mooy xalifa yonent bi Ababacar Mansour mooy xalifa amin ci Tiwaawan am jàmm. mayit daf maa bëgg. sama soxna man kii moo ko takk kii moo takk sama soxna alsaan nag moo ko may jabar mais man sama soxna duudu moo ko takk maa ko mag fopp mais ñun ñaar pas-pas la ñuy doxalee mais doxaliwul mag ak rakk yal na yàlla yokk sa sutura te nag nga junne mu ngi koy def ci kër gi di suturaal sama yaay ba mu génn àdduna sama yaay dana wax benn doom laa am mooy duudu kenn il reste toujours d'un homme ce que donne à penser son nom et les signes qui font de son nom un sujet d'admiration de haine ou d'indifférence yàlla ngi dogal ñuy jël ay teraanga di ko ak man su weeru koor jotee daanaka li may jëfandikoo ci koor gi yëpp ñoom ñoo koy te Pape Sylla wax na ko léegi seen mbokk taalibe rek la ay cofeel ñu am ci bàyyi mbay dond moom la ñu am ci njaboot yi umbaale ñu ci ñun ñëpp loolu moo tax ñu di ko jëfandikoo jëfe ak man gàmmu Tiwaawan bu mi may sol ci jumaa ji ñoom ñi ñoo ko defar def ma ko bi ci des gis ngeen mi ma lim ci dina ñëw dama leen a waxoon ni leen damay sol seen yére mu wert bi ma solaloon waaye na koy saar moo cënd lii ñëw ko jox ma indi ñaari kaar ak sept place kooku ma ni ko nag kon bàyyi ko déggal la ci sol ko ndax ku def lii waaw nee na leen ko bu def lii war na la cee sant. loolu rek moo tax. nee loolu rek moo tax. nee loolu moo tax mu sol lii. waaye seedeel leen. waaye seedeel leen. suñu cant. suñu cant. ak suñu contentement. ak suñu contentement. di la seedeeleen xalifa. nee di la seedeeleen xalifa. seen mbir mii. seen mbir mii. benn dërëm. benn dërëm. defuma ko ci. defuma ko ci. sama bëgg mu leer. sama bëgg mu leer. sama un franc. sama un duggul ci lii. duggul ci lii. ñoom ñoo ko organisé. ñoom ñoo ko organisé. bañ nañ ko ba. bañ nañ ko ba. su ma leen nee. su ma leen nee. mbaa yéen du ngeen am problème kon fu ngeen toll. ah waaw yéen fu ngeen toll. dañ naan ma yow daal bu bis baa ñëwal rek. naan ma yow daal bu bis baa ñëwal rek. waaye. waaye. teguñu ma ci dara. teguñu ma ci dara. benn dërëm. mais benn dërëm. defuma ko ci. defuma ko ci. moo taxit. moo taxit. lu ma fi waay jox. lu ma fi waay jox. ma jox ko parcelle. ma jox ko parcelle. loolu mooy ngor. mais parce que loolu mooy ngor. ndax. ndax. ñoom du jël seen alal. ñoom du jël seen alal. financé ko ci lii. financé ko ci lii. keneen dégg. keneen dégg. ñëw di ma jox enveloppe. ñëw di ma jox enveloppe. may def ci sama poche. may def ci sama poche. kon su bor amee. kon su bor amee. maa leen ko yóbbee. maa leen ko yóbbee. moo tax. mais eh, moo tax. léegi naan naan am ci. léegi lay wax am ci. mbaa amu benn bor. ndax daf leen a yërëm. ma bàyyi ko ak ñoom. ma bàyyi ko ak ñoom. ñu organiser. ñu organiser. waaye bu ñu yàlla maye. waaye bu ñu yàlla maye. yàlla mën naa def. yàlla mën naa def. ah buñ ci duggee bu baax a baax. ah buñ ci duggee bu baax a baax. xëy na mën naa bañ mën naa ëpp lii sax. xëy na mën naa ëpp lii sax. waaye nag. waaye nag. damaa wu ñemewul woon. mais dafa ñemewul woon. loolu. loolu. tax moo tax ma di la ko seede ma di la ko seede Seydou Ami ni Seydou Ami comme ni ngeen ko waxe comme ni ngeen ko waxe gis ngeen la mu jele pikki gis ngeen la mu jele pikki mbooloo mu bari mbooloo mu bari jël ay kaar jël ay kaar ànd ak Diallo mi ànd ak Mouhamad Diallo mi gis ngeen lim leen doon baatare gis ngeen lim leen doon baatare duguma guddal maa ngi sant nee ma ngi sant ma seer sàll Massaye Sall. ñëw yëpp neex na. ñëw yëpp neex na. waaye ñëwam tam neex na. ndax xalifa indiwu ko. ndax xalifa indiwu ko. bàyyi mbay doon doo ko indi. bàyyi mbay doon doo moo ko indi. ndax yaayam. ndax yaayam. mooy jarbaatu bàyyi mbay. mooy jarbaatu bàyyi mbay. léegi laa naan ay dëkkar. léegi laa naan ay dëkkar. bi ma naan sama yaay nee na. bi ma naan sama yaay nee na. Dakar la nekk. Dakar la nekk. moom daal comme sëy bi nangu ko daal. ni ko moom daal comme nangu sëy bi moom as may la. na toog rek. na toog rek. te ma seer. te ma seer. ñoo yaroondoo. ñoo yaroondoo. màggandoo. màggandoo. defandoo lépp. defandoo lépp. waaye tabaarakallah. waaye tabaarakallah. ñu rafetlu seen jataay ñoom ñëpp. ñu rafetlu seen jataay ñoom ñëpp. xam nga mbokk dafa cher. xam nga mbokk dafa cher. asu mbay sekk nga na le asu sekk nga na di magu faama di magu faama am ñoom xari jeng ànd ak ñoom xari jeng ak ñoom aw sekk ak ñoom aw sekk tabaarakallahu tabaarakallahu te foofa laa nekk nee te foofa laa nekkoon Cheikh Seck boutique bi mu jox joxoj nee Cheikh Seck boutique bi mu joxoj maa ko ubbi woon nee moom mi moo ko ubbi woon man way yi damaa dab rek nee moom way yi daf ko dab rek waaye man waaye man. Moodu Moodu naa. Moodu Moodu naa. nekk naa fii commerçant. nekk naa fii commerçant. keroog bi ñuy bi ñuy sànni ab bi Abdou Diouf di sànni Abdoulaye Wade bi ñu koy sànni lacrymogène yi fii. keroog bi ñuy sànni Abdoulaye Wade lacrymogène yi fii. sama boutique bi la nit ñi daw dugg. mais boutique am bii la nit ñi duggoon. am na ci koo xam ne sax. am na ci koo xam ne sax. dama ko ne looy wut. dama ne ko looy wut. mënu ma damay jënd. mënu ma damay jënd. waaye mujj gi ay dàllam la doon wër. waaye mujj gi ay dàllam la doon wër. 88 la woon. 88 la woon. nga xam ni kon. nga xam ni kon. vraiment fii c'est historique. vraiment fii c'est historique. xam naa yaa asuñu mii. xam naa yaa asuñu mii. nelawul. nelawul. Euh, pièce boobu. pièce boobu. Euh, Cheikh Seck di xëccoo. Cheikh Seck di xëccoo. Moussa. Moussa. te yëg ci te de quartier bi. te yëg ci garab gi ci mooy chef de quartier bi. kër gii ngeen jàkkaarloo. yéen kër gii ngeen jàkkaarloo. te booba noo fi nekkoon. te booba noo fi nekkoon. nga xam ni kon. nga xam ni kon. lu rëy la daal. lu rëy la daal. bëgguma guddal. mais bëgguma guddal. ci bu baax. ci xam-xam bu baax. doon ci guddi na. ci guddi ndax mooy suñu kilifa. ndax mooy suñu kilifa. di taawu Alaaji Mbay doon. di di xalifa. di xalifa. te nag. yàlla may ko. yàlla may ko. xam-xam bu baax. xam-xam bu baax. moo tax. ah moo tax. bëgguma guddal. bëgguma guddal. yooyu seede rek laa doon def. yooyu seede rek laa doon def. ñu jox. ñu jox ko mu waxtaan. waaye dafa am lu ma doon ñaan. waaye léegi dafa am benn xasida rek. benn xasida rek. laa bëggoon. laa bëggoon. am ku ko yëkkati. am ku ko yëkkati. ubbile la ko sa turandoo. ubbile la ko sa turandoo. ndax bu ñëpp waxee. ndax bu ñëpp waxee. te waxul. te waxul. dafay xaw a diis ci man dafay xaw a diis ci man muy xalifa Thioub muy xalifa Thioub bu El Hadj Cheikh Tidiane Thioub bu El Hadj Cheikh Tidiane Thioub ba bëgg rek ba bëgg rek nga wayal ko ku la xool dootu xool nga wayal ko ku la xool dootu xool leneen ورحمة متصلة منك إلى روح أبينا أبي بكر وإن كان في القبر رضينا به شيخا إلى آخر الدهر